Mm. Ah, yàlla baax na de yàlla baax na <laughs> waaw baax na kon en attendant ñu ñu jéem a xëy xëy ci li ëtt yéene kaay xëy fasal doore ko Walf Quotidien rek waaw Walf Quotidien dafa xëyee amal ab taxaw seetlu yaatu jëmale ko ci jeu d'alliance nga xam ñu ngi koy nemee ko jamono ji ci làngu politique bi yéene kaay gi ne fu mu toll nii doon télé euh, nguur gi bañ fi toog léegi yàggut waaye fu mu toll nii am na ci ay part yoo xam ne ñu ngi nekk di waxtaan ngir jéem xool naka la def ba jaam a benn alliance su ko defee ñu mën a jàkkaarloog Bassirou Diomaye Faye ak fësale yéene ci accident gu jéggi ne meeku nañ ko dikki ci kaw yoon wi euh, yéene kaay gi ne ci weeru sulet bi rek xay ma nañ ci daal lu ci toll ko fanweeri doomu adama ak benn yoo xam jot nañ ci ñàkk seen bakkan ci kaw tëli bi yéene kaay gi moo xëy fësal loolee déclaration de patrimoine Diomaye Faye président mujj na wax la nga xam moom la waxante woon askan wi noonu la ko yéene kaay gi di Walf Quotidien xëyee euh, fësale. ñu dem ci euh, le soleil yéen le xëy dellu soit déclaration de président daanaka mujj na koo jëfee noonu la ko yéen a gi xëy fësale yéen a kaay gi ne président daal nay fësal salaire bi nga xam ne moom lañ koy jox at mu ne maanaam weer wu ne mu ngi toll ci juróom million ci franc euh, daal lu ci la fa nekk daal mu ngi toll ci juróom benn téeméer yu teg ñaar fukki dërëm am na nag benn kër goo xam moo ko moomal boppam am nañ ci terrain am na benn woto boo xam auto occasion la mu ngi ko jëndoon

réew mi quotidien xëy dellu soit ci déclaration de patrimoine président Bassirou Diomaye Faye mujj na koo jëfee euh, président nag mujjee na euh, fësal salaire am mu ngi toll ci juróom million ci franc CFA parc automobile daanaka benn oto la ci am te oto occasion la mu ngi ko jëndalu ci tolloog fukki million ak juróom-ñeent wax tamit ci bor boo xam moo ko topp jamono ji mu toll ci fanweer ak benn ci suñu koppar maanaam million ci suñu koppar noonu la ko yéenekaay gi di réew mi xëy fësale ab accident gu métti am ci kaw yoonu Louga wi fukki doomu aadama ñaar ñoo jot a ñàkk seen bakkan juróom-ñeent jot ci jëlee ay gaañu gaañu yu métti noonu la ko yéenekaay gi di réew mi xëy fësale le quotidien yéen kay xëy dellusiwaat ci déclaration de patrimoine Diomaye finalement mujj naa fësal la nga xam ne ni moom la jote am ci alal noonu la ko yéen kay gi xëy fësali mu nekk nag alal joo xam ne nii daanaka la mu nekk fonctionnaire moo ko ko may yéen kay gi moo xëy fësal loolee ab accident gu métti gu méttee ko yoonu Fatick wi euh, ko ko yoonu Louga wi kon fukki doomu adama ak benn ñoo jote ñàkk seen bakkan noonu di le quotidien xëy fësale yéen gi di yor ne déclaration patrimoine président Bassirou Diomaye Faye Euh, fexe daal mbir yi jaar ci yoon mbir yi sell lool yi mooy li tax a jóg kii di président euh, moo tax nag fësal na patrimoine am nee na am na villa bu toll ci 200 mètres carrés fële ca Mermoz loolu tey jii bu ñu ko doon xayma mu ngi toll ci téeméer ak ñeent fukki millions ci francs CFA boo xam ne jëndoon na ko fukki millions ak juróom-ñeent la ko jënde woon am na ci ab terrain boo xam ne terrain mu ngi toll ci ñeent hectares ak lu teg ngi ko jëndee woon fële ci Sandiara lu ci tolloog fukki millions ak juróom ci suñuy koppar am na ci ab terrain boo xam mu ngi ko jëndee fële ca Kër Moussa 202 mètres carrés la toll mu ngi ko jëndee woon lu toll ci benn million ak genn wàll suñu koppar wax na tamit ci terrain bi nga xam mu ngi am fële ci Jega ñaaw wax ci bor bi nga xam amee na ko banque yi mu toll ci fanweeri million ci franc CFA noonu la ko yéene kaay gi xëy fësale salaire nag mu ngi toll ci juróomi million noonu la ko yéene gi di yor yor yéen a kaay gii di l'info ne boo xoolee déclaration de patrimoine bi nga xam ne ni président Bassirou Diomaye Faye wax na ko daanaka daal ci wàllu koppar boo xoolee ba xool Bassirou amul koppar waaye nag bu dee ci wàllu immobilier euh, président Bassirou Diomaye Faye amee na ko bu mu doy sëkk noonu la ko yéen a kaay gii di l'info xëy fësale waaye yéen a kaay gii daalal susaa xëy xëyee euh, dalal ka nga xam ne mooy njiital euh, NHWA di Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye li ko waral nag moo di benn marché boo xam ne ko gañe woon mu nekkoon nag daanaka ab ay masse hélicoptère boo xam da ko waroon jox waa Woodside su ko defee ñuy mën di jël seen personnel di leen yóbbu ci biir géej gi waaye nguuru Macky Sall daanaka dañ koy gaayoon doole nangu mbir yi ngir jox ay français Eh, mbiri nag naka la deme woon moom Cheikh Tidiane mu ngi koy leeral ci yéenekaay gii di source a yéenekaay dama xëy dellu siwaat ci accident gu metti gi nga xam ne meeku nañ ko ci kaw yooru Kébémer wi fukki doomu aadama ñaar ñoo ci jot a seen bakkan ci jamono jooju fële am na ci ab camion boo xam dafa saaran camion malien la fay faat fa lu ju tolloog ñetti doomu aadama eh, xale yoo xam ne ni kenn ki mu ngi am ñaari at ka ca am ñeenti at ka ca des fukki at noonu la ko yéenekaay gi xëy fisale ñoom ñëpp ci ci saa si lañ dee Euh, président maanaam El Malick Ndiaye nag ñëw na yëkkati na ay kàddoom waaye li gën a daal métti yéen kaay gi mooy daal euh, suñu autorité dañuy bàyyi ba jaan wooye ñuy topp di dóor ci wàttit wa noonu la ko yéen kaay di bés bi ne léegi mënatuñu toog ah, benn fan boo xam ne déggul ñu ñanaan ah, ca borom sama accident am na fa bi ci mujj rek mu ngi am ni ki démb ci kaw yoonu Kébémer wi ab camion moo fa mbëkkanteeg benn minibus fukki doomu adama ak benn ñoo jot ñàkk seen bakkan El Malick Ndiaye di jëwni ji dénk wàllu transport ci nguur gi nee na incha allah rabi lu jëm ci sanction yi daañu ko gën a taral noonu la ko yéenekaay gii di bés bi xëyee fësale euh, yéenekaay gii di la goo xam ne nemee nañ ko ci kaw yoon wi euh, fukki doomu aadama ak ñoo ci jot a ñàkk seen bakkan euh, yéenekaay ministre bi nag di Malick Ndiaye xam ne yëkkati na kàddoom daal di wax ne nag jot na nag yar wi génn noonu la ko yéenekaay gi di las xëyee fësale yéenekaay gii di la tribune ne daanaka ci biir semaine bi li ñu xayma ci la nga xam jot nañu ñàkk seen bakkan ci géej gi wala sax si kaw yoon wi mu ngi toll ci ñaar fukki million ak benn euh, benn mu ngi toll sax ci ñaar fukki doomu adama ak benn noonu la ko yéen kaay gi di la tribune xëy ndax démb rek am na lu ci tolloog fukki doomu adama ñaar yoo xam ni ñàkk nañ seen bakkan ci kaw yoonu ngaay mexe wi ab camion aussi rey lu ci tolloog juróomi euh, lu ci tolloog ñetti xale yu toll si juróomi at fële ci Saraya alxames ji ñu génn juróom benn doomu adama ñàkk nañ seen bakkan ca Ndulu yi ci diggante Kaolack Tamba Bakel lañ ci enregistré ci ay doomu aadama yu ñàkk seen bakkan kenn xamut nu mu toll noonu la ko yéenekaay gi di la tribune xëyee fesale ah, euh, le mandat xëyee dellu soir ci opposition bi nga xam ne jamono ji taxawuñu tembe ngir may Ousmane Ousmane ak Bassirou Diomaye Faye fu ñu yàqee seen nakk yéen kaay gii ne opposition bi jamono ji dañoo nekk di fay euh, Ousmane Sonko ak Bassirou seen bor noonu la ko yéen kaay gi euh, di critique xëy fasale euh, ñu dem si direct kaay gi dem di xëy dellusiwaat ci du baax mi nga xam ne daanaka génn na Euh, amal na nag ab euh, tànki nemmeeku fële ci diwaanu Touba jot na gisee xalifa général démb di sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké waaye bu mu génnee nangu tëye yàbbi ci tolluwaayu politique bi ci biir réew mi yéen kaay gën ab stratégie la boo xam moom la Amadou Ba tëral wute loolu ak stratégie bi nga xam moom la fi lenn ci opposition bi amee jamono ji noonu la ko yéen gii di direct news xëy fësale Sud Quotidien concours général tey ji nag ci la ñuy fas xam ndongo nga xam ñoo gën a ràññeeku ci at mi mhm. ma ngay amee fële ci Grand Théâtre ci teewaayu président Bassirou Diomaye Faye noonu la ko yéen gii di Sud Quotidien xëy fësale euh, xëy dellu soit ci mercato ah, nga xam ñu ngi koy nemee ko jamono suñu gaynde am ki nga xam moo di Lamine Camara noonu la ko yéenekaay gi des stades xëyee fësale soxna Aïcha. jeexale ko suñu lamb. jeexale koog suñu lamb wax ci combat euh, bi nga xam ni jamono ji ñu ngi koy togg ah. yéenekaay gi xëy samp laaj bëgg a xam ndax Balla Gaye numéro 2 fu mu toll dafa nekk di xaar diggante Modou la boo xam ne samp la. Euh, euh, amal li nga xam ne moo di commentaire bi dañuy dem jëli ji benn a rek ñëwaat. <laughs> alors de retour euh, sur ce euh, plateau ànd ceeg euh, Omar Ba pour la revue bon revue bi sax jàll nañ ci ñoo peut-être sur le commentaire du jour Seydina actualité bëri na tawuti foo ci nekk fi nga génn mais defe naa déclaration de patrimoine tamit de accident bu démb bi tamit Kébémer bi on y revient on parle encore que ça devient très très récurrent déjà sax la routine la li ñuy nemmee ko accident yi bëri ñi nga xam ne ñoo ci jote ñàkk seen bakkana mhm. parce que métti na ce que xam nga ne boobu boobule ñoo suñu village la bàyyeekoo Thiamène mhm. waaye chauffeur bi sax ca dëkk ba la dëkk ak apprenti bi oh. en général oto bi sax nee nañ dafay dox dafay jóge kokki di ñëw Dakar en général dafa mhm. jóge Dakar doon doon kokki fa daje camion bi ba li mu am am ba chauffeur bi ñàkk na ci bakkanam apprenti aussi bi ñàkk ci bakkanam ak it passagers yi nga xam ne nii ñoom la ñoom la ñoom ñoom lay yaboon. bon mu nekk nag loo xam ne lu metti la mm-hmm. wax dëgg yàlla ñu ngi koy jaale njabootu ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ci jotee loru le mm-hmm. ñoo ci jot loru te ñaan yàlla aussi ñi nga xam ñoo ci jëlee ay gaañu gaañu. Mm-hmm. yàlla yëkkati leen bañ nekkaat ci seen activité mais lii nag du buulee temps ñu koy nemmee ko ci kaw tali bi parce que boo xoolee journaux yi si bëri ñu ngi koy énuméré parce que bu weesu accident bi nga xam ne nañ ko démb ci démb rek am na beneen accident goo xam ñu ngi ko nemee ko fële ca Saraya. te mel benn camion boo xam ne ni camion malien la boo xam ne dafa saaraan. rey fa lu ci tolloog juróomi xale. ki ci gën a mag mu ngi lu ci juróom ci juróomi at ki ci gën a tuuti mu am lu ci tolloog ñaari at. mbaaru ba oto dugg ci kër yi fële ca Saraya. te fekk na lu ko weesu amoon accident koo xam ne ñu ngi ko doon waxtaanee fële ca Nduluma ji. Mhm. te mooy benn minibus aussi bi nga xam dafa dajeeg benn camion ci rond bi. ba finalement gis nga li ci ñàkkoon seen bakkan six person la ñoo ci jotoon ñàkk seen bakkan mhm. mu nekk aussi loo xam ne ñu ngi koy jooy noppeeguñu gis nga problème bi nga xam ni amaat na mhm. euh, comme ni ko benn journal waxee cest di que ñu dañ am habitude comme quoi que ne chaque jour bu accident amee da ngay jékki kilifa yi def seen gàngoor def seen déplacement ñëw ci lieu bi def seen déclaration wax ne ne plus jamais ça boo fàttali ko accident bi nga xam ne amoon na xaw ma fële ci. 6 euh, kilos mm-hmm. ba mu amee boo xoolee état bu Sénégal dañuy jëloon ay mat ay matukaay. ci réunion yaakaar naa ñaar fukki mesure la ak ñaar yoo xam ne ñu ci jublu woon moo nekkoon fexe ba accident yi dootu fi amati. Mm-hmm. tey jii bu fekkente ne yaa ngi xool ñaar fukki mesure ak ñaar yooyu la bu fekkente ne am na buñ ci respecté wala yuñ ci respecté benn wala ñaar yi si biir daanaka respecté tuñ ko. Mm-hmm. kon c'est-à-dire que ñun dañu am ay autorités yoo xam ne nii chaque jour bu problème amee dañuy ñëw def seen déclaration bu ñu paree dem ni ko Abdoulaye Wade ak nguuram daan defee. Macky doon ko def ak nguuram noonu la ko Ousmane Sonko ak nguuram assemblée noonu la ko président Bassirou Diomaye Faye ak nguuram di defee. parce que ba ñu fi nekkee ba léegi accident yaa ngi am. te chaque jour bu ñu génnee dañuy def seen gàngoor dem ca barab def déclaration bu ñu <coughs> Sénégal kenn du ko yore ci masla Sénégal bu fekkee ne dañ ko bëgg a yore ci masla ñun nguur gi fi nekk tey bu yeboo rek ñu waxoon na président Macky na dellu si waat parce que dafa am loo xam ne ni dafa ancré ci sénégalais yi gis nga sénégalais xamul yàlla mhm. faale wu ko dund ko sénégalais la mu xam mooy yar ci ñenn ñi parce du ñëpp am na ñoo xam ne peut waxee ñu dégg mais am na si ñoo xam ne daanaka bu ñu waxee ba ñu waxee du ñu dégg. Mhm. kon bu fekkente ne accident waxtu wu amee nañ jàpp ne même bu fekkente ne côté matériel bi joué na ci. Mhm. yoon wi joué na ci. Mhm. mais dañ jàpp bi moom moo ci am benn part de responsabilité. bien parce que yoon yi bu fekkente ne dafa bon chauffeur buy jaar ci aw yoon wu bon war na xam nu muy dawee. bu fekkente ne yoon wi dafa xat. chauffeur bi buy jaar ci yoon wu xat war na xam nu muy dawee. mais chauffeur si xàmme wu ñu yoon wu bon ak yoon wu xat. ay xël la ñuy dawee kon bu fekkente ne accident am na li ci ëpp nañ jàpp ne responsabilité chauffeur la boo waxee nag syndicat yi jóg am lu ñu wax mais accident fu mu amee jàpp ne responsabilité chauffeur la kon dafa am ñoo xam ne il faut que état bu Sénégal jël ci ay matukaay parce que mënuñoo dëkk wax dëgg yàlla Sénégal jamono ji li fi nekk ci ay sénégalais bareetuñu suñuy doom yëpp dee nañ dee nañ ci géej gi. ñu ne déet waaye géej gi ni euh, ñu ko waxatee sax euh, bi di rey. moo tax ba ñuy def recensement gars yi def recensé li ma la mën a xamale gis nga ñañu recensé yëpp boo gëstoo ba ci biir du ñu ay sénégalais ñu si bëri si ay étranger lañu. parce que sénégalais suñu peuple moom moom ñu bëreetul ñëpp dee nañu ñi dee nañ ci géej gi ñi dee nañ euh, ci ci ci kaw tali bi. te loolu nag dafa doon dafa dafay am solo état bu Sénégal jël ci ay matukaay pour lii dàkk soxna Aïcha. Mmh parce que yi mënut la continuer. parce que accident mënta am ngeen dajale ku bett benn conseil interministériel génn fa lu ci tolloog ñaar fukki mesure ak ñaar mu nekkoon ñaar fukki mesure ak ñaar yoo xam ñëpp ñu koy saluer mais taxu mesure mesures yooyu le noonu lañ ko jëlee daal koy sànni ci àll te gis nga soxna Aïssa boo gisee maanaam euh, nguur gi fi nekk tey neexul ba neexul waaye lii lii seen dangaar dafa des loolu bokk na ci gis nga dañ leen bañ leen fal dañu waxoon ne ñun dañoo bëgg suñu état bi dañ ko dañu bëgg nguur gi fi ne. Mhm. li fi nekkoon ñu changé ñu ko radicalement. Mhm. mu bañ am yox-yox yi. Mhm. ko changé parce que ñun loolu la ñuy gisoon ne ñun Sénégal actuellement nii doxut. Sénégal dafa bëri ma foot footisme lu ma neex laay def kenn mooy ci dara. léegi loolu nga xam moom lañ gisoon moom ma taxoon ñu jëlee fi nguur yi fi nekkoon fan lañ ñoom. kon ñoom tey jii bu ñu fi bu fekkente ne dañ bëgg a jëlee même procédé amul sens. effectivement parce que xam nga problème bi parce que tey jii boo demee ci tëli bi mais alkaati mu ngi wéy di rakkati ba tey policiers boo demee ci ci bi jusqu' à présent policiers yi ak alkaati ñu ngi wër euh, ak gendarmerie ñu ngi wéy di rakkati ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom ñoo di ñoom ñoo di chauffeur yi mais bu fekkente ne loolu mu ngi am ba tey naka lañ fi mën a jëlee accident su fekkente ne jël nga ab oto boo xam ne li wër oto bi war te mën a daw. nga jël ko yóbbu ko fourrière. gaare oto bi delloo autorisation da nga ko demal. mais duñ ko def da nga jékki-jékki oto bi def infraction nga jékki-jékki gisanteeg chauffeur bi gisanteeg policier bi bi am noo defanteeg bi nga bàyyi ko bi. mais pratique yooyu lañ doon dund ci jamonoy Macky Sall. pratique yooyu lañ doon dund ci président Abdoulaye Wade. kon président Diomaye Faye bu ñëwee pratique dafa war a dañ. naka nga mën a jëlee ab moto xaw soi parce que tout simplement amul ay papier ngay nangu mu lay jox 6000 francs boo xam ne sax des fois du am reçu. ba noppi nga bàyyiwaat encore mu delluwaat ci kaw tëli bi. mais en rupture. boo jàppee ak moto boo xam ne ni amul papier yóbbu ko fourrière. xanaa beneen moto kay mais bii moom bokkatul. mais li gën a garaaw chaque jour nga gis ay borom moto woo téléphone naan la sama moto jàpp nañ ko gars yi dañ may laaj 6000 francs te 6000 francs yoo xam ne ni mais il faut que mu leer quoi. su fekkente ne ñoom dañ leen fee fal. ñu bëgg ñoo indil même procédé bi nga xam moo fi nekkoon amul sens. ñun dañoo bëgg benn changement bu radical. même bu fekkoon ne dictature la mais nañ ñu imposer ñun. nañ xam ne ne nguur yi fi newoon ak nguur gi fi nekk tey bokkul. mais tey jii bu ñu waxante dëgg côté bii moom dara du ci soppi dara soppeeku ci. du du impo du imposer sax du dictature mais euh, nguur gu bees gi li ñu am ci euh, euh, li ñu am ci taxawaayu état moo neex. parce que mënuñu laa fal quand même pour premier tour ci opposant boo xamante ne ni euh, mën nañ jàpp ne benn dix ans rek nga opposé wu mais quand même nga réussir avoir benn 54 euh, euh, pour cent des populations yaakaar naa ne loo teg population bi ci bëgg jëmale leen kanam ci bëgg wàññi ay accident loo leen teg lu doon di tàccu ci ñoom mais dañ koy accepter parce que sénégalais ñoo la jox bopp moi je pense que c'était le moment de faire des réformes yu baax yoo xamante ne nii sénégalais bi na teg seen bët mais Seydina ngal la renouvellement parc automobile bi ñaata at lañ bañ ko dalay wax ak léegi te ba tey tey la kànkar yeeg ak euh, fourrière yeeg yëpp di gën a daw te ñaata atu yàlla ñuy wax ne dañuy renouveler waat parc automobile te tey ngay gis ay car rapide ak njaga njaay yoo xam ne ba muy daw man booba sama bootul samay waajur sax ay ay gënu lañu woon te ba tey ñu ngi doj tali bi dafa am yoo xamante ni man damay jàpp ne mun xaw ma volonté la man xawma lobby yu nekk seen ginnaaw la xawma chauffeur am doole boobu kenn mun leen wax dara xaw ma lan la mais mënoo comprendre affaire bi nu mu nu mu demee te boobu ba tey amul benn changement boo xamante ni nemmeeku nañ ko ci ci ci tali bi au delà mauvaise infrastructure bu taxawee tali yi baaxut waaye chauffeur si li nga wax léegi ci wàllu comportement mais également ne état bi jël ay jéego def ko renouvellement parc automobile yu indi fi ay bus yoo xam te dina bees tàq may askan wi afiye ñu mën a dem ak jàmm parce que accident lu war a mën a ñàkk la ci réew. li ma la mën a xamoon mooy que. même bu fekkente ne renouvelé nañu. Mm-hmm. oto yëpp indi fa oto yu bees. Mm-hmm. te fekk na chauffeur saa ngi fi di comportement comportement bu ñu nekkee nii. Mm-hmm. policier yi gendarme yi nekk ci kaw ci di comportement comportement bu ñu nekkee nii. accident yi tey jii lay gën a ay. loolu tamit beneen la. dañu wax dëgg fii bu ñu waxante dëgg. gars ba ñu renouvelé parc automobile en deux mille jël projet bi déposé ko banque mondiale. banque mondiale financé ko. ci li waxoon ne maintenant li ñu def mooy. a benn bis bu nekk benn car rapide boo gisee tey jii bis tata yi am fii loolu moo ko taxoon. mais nañu maa ngi defee kii konk bis tata yi wala bis tata yi la ñuy accidenté caaru Ndiaga Ndiaye accidenté wuñ ko car yi accidenté wuñ ko. c' parce que tout simplement dañoo transposer le problème chauffeur si nekkoon ci car rapide yi chauffeur si nekkoon ci caaru Ndiaga Ndiaye ñoom ñoo nekkaat ci bis tata yi. que renouvellement mën na am. mais boo renouveler aussi te fekk nit ñi fa nekk aussi amoo ci ñu defaloo ci ñoom benn benn benn éducation bi du sotti. damay d'accord yow sax te sénégalais damay sax yow gis nga oto euh, parce que tout simplement am nañu formation. am na yar xam nañu nu comporté woo. Mm-hmm. Mm-hmm. am nañu un bon salaire. ah c'est ça gis nga ngaa ñëw Moussa. c'est mm-hmm. loolu loolu mooy problème bi. ba ñuy renouveler parc automobile bi en deux en loolu la ñu woon. dañu waxoon ne maintenant chauffeur si dootuñu leen jàppee comme li moom ko gars ko doon waxee Isra Israël mhm. ay transporteur ñoo fa doon toog yore seen carte seen i carte Ndiaga Ndiaye ne chauffeur lii moom la dañ koy naan bu njeex daal di koy sànni moom moo taxoon chauffeur tekkiwul woon dara ñu dem bi mhm. mais ba ñuy renouveler parc xam lan la Banque mondiale wax mhm. dafa ne chauffeur si dañ leen di embaucher dañ leen di fayal IPRES dañ leen di fayal IPM ba noppi nag jamono jooju ne dañ leen a formé ñoom gis nga boo xoolee chauffeur si nga xam ne ñooy njëkk a dawal bus tataay ak receveur yi njëkk a daw nekk ci bus tataay dañ leen a formé ay professionnels yore seen i mais gis nga loo boobule bu mu jeexee formation amatul léegi lu waay neex def transporteur la bëgg naa am xaalis bu duun léegi li may def mooy dama waxtaan su sumay chauffeur ne leen ku ëpp loo versé mu doxal la mbaqus moom moo tax ngay gis gawa rawante gi am ci télé bi bu fekkente rawante dafa am télé bi nit ñi nàkk seen bakkan te fekk na ñi leen war a réguler aussi ñoom ñu ngi xaar dërëm ak ñaar dërëm bu ñu dugal seen poste dëkk boobu lu dem li may xaar ci président Mac président Bassirou Diomaye Faye mooy bu fekkente ne ñoom dañoo bëgg a jël procédé bi nga xam moom la fi gars yi doon def amul sens heure bi waroon na fekk Sénégal yi bi waroon na fekk chauffeur mu ngi naan mi tey ma accidenté fii tey li ma ci nar a fekk parce que nguur gi fi nekk ak nguur gi fi nekk tey bokkatul des fois nga jékki-jékki ah, ab waay bëgg def dara day toog ba si àgg ne eh waa mais man tëli bii mbedd mi nu amatuma fi toog fi parce que la waroon nekkatu fi mhm. mm-hmm. ay fii bu ma fi toogee ba gars fekk ma fi li ma fi nar dal mm-hmm. mais mbur foofu ka fari jëlee nañ leen fii ba ci démb ñu waat si kaw tëli bi bu waxee ñu naan marchand ambulant yooyu leen faloon mais bañ leen di fal dañ leen fal pour ngeen changer réew mi du question que ne marchand ambulant rek fu ma leen xay taxaw mm-hmm. ba ngeen kon bu fekkente ne ñoom ñu ngay déroulé képp ku nekk ci mbedd bi lañ dafay jëlee par force mais mooy jël nañ la ni fa amuñ non c'est parce que tout simplement yéen ba ngeen doon fal ñii da nga leen fal pour ñu changer kon ñu changer mais la man yëguma ko woon pourquoi. loolu yaa ngi wane leen fal pour que ñu changer. heure bi waroon na fekk Moussa man lu may teg dama koy xoolaat. lépp lu ma def dama koy xalaat heure bi waroon na fekk bépp chauffeur bu war a accidenté xam nga la da ci war a fekk mais bu ñu paree def artiste Ameth sa déclaration ne daañu jël ay mesures mesures ok monsieur le maire man li ma étonné mooy euh, récemment waxtaanu accident bi daa mel ni démb lañ ko fi doon waxtaanee mooy salle bi nekk ci kaw mooy bus <laughs> boobu doon jóge Pikine c'était comme hier c'était comme hier quoi en fait donc euh, aujourd'hui ñu xëyaat amaat beneen accident boo xamante ni onze morts euh, am na si mais sànq euh, li ma la bëggee a interpeller sànq da nga ne policier yi wala boog les takkader yi ak cak-cak yeeg consort quoi man je me dis est-ce que foofu du la responsabilité des force de l'ordre ñoom la ñu war a mettre les points sur les yi parce que voilà nee nga sànq am na nu ñuy jëflanteeg yooyu noonu ñu bàyyiwaat leen di dem ak yooyu noonu est-ce que ça c'est pas la responsabilité de des forces de l'ordre comme ay tak policiers consorts que état parce que état tamit lu mu mën mooy wax ak njiit ñi donc ñu nekk à la base est-ce que du ñoom ñoo war a xoolaat seen comportement. parce que certes aussi c'est à c'est à s'indigner parce que man gis naa ci policier boo xamante ni dafa jàpp ay moto ay moto lañ jàpp mais xam naa a fallu que mu moom di doolanteeg moom ay kurpeñ. fa la ñàkk fay tàmbali est-ce que ça c'est normal bu ñu ab oto bi bu njëkkoon ñun ba ñuy nekk xale bu ñu mësaan seen policier dañu doon daw dugg ci suuf rondaw bu njëkkoon dañuy waxante rek suñu génération ñun ba ñuy gën a nekk xale képp koo xam ne gis nga ab policier da nga doon dugg dugg suuf rondaw parce que boobu ah. policier dafa doon am lu mu doon incarné dañoo ragaloon dafa amoon benn respect même sa même chauffeur sax ñemewul woon policier mais bu ñu demee ba comme policier ba chauffeur yi di wëlbatiku di xeex ak policier c'est parce que seulement policier yi ñi ma ko mën a wax dañoo ñàkk fayda parce que dañoo war ak ñàkk fayda ci kanam euh, euh, euh, mais bu fekkente gis nga mooy li ma la wax sànq bu fekkee gis nga ñun sénégalais yi li ñu xam mooy yar ñu ma ko mën a wax soxna sëñ Moussa mm-hmm. gis nga bu fekkonte ne président Bassirou Diomaye Faye bu ñëwee dafa ne di amoon amatu fii nañ ma wooye dictateur nañ ma wooye dictateur amul benn problème mais la wonoon wonul ci dafay am dootu dootu fi amati mu neex nit ñi nag mu naqar leen dootu fi amati bépp policier boo xam ne jàpp nañ la ngay raket ci kaw téli bi dañ lay dàq sans droit dañ lay dàq amul sax kii bépp chauffeur boo xam ne def nga accident ci Taïf sa permis dañ koy dañ dañ koy retiré am dootul dootul ci kaw tëli bi. yenn oto yi dootul dawal ci kaw tëli bi mm-hmm. mu am ay changement radical yoo xam ne Sénégal dañ koy sentir ba su ko defee sénégalais. balaa ngaa defa ci dara da koy xoolaat da nga koy xoolaat d'accord alors mais neex la ñuy def vraiment foutisme la ñuy doxee. mu ngi mel ni président fi nekk ba tey. alors c'est ça c'est ça qu'on a voulu faire avec les marchands ambulants mais gis nañ ni li leen ci fekk yombul de. d'accord lan moo leen ci war a fekk lan moo leen ci war a fekk man xam nga la c'est man maa ngi nekkoon conseil ah marchands bu ñu si bëri si ñoom samay gars lañ samay partenaires lañu mais dafa am yoo xam état bu Sénégal bu fekkente ne jël na il faut que ñu ànd seek ñoom du question ko ne kii fal naa ko rek daf ma war a bàyyi xel non ñii bañ leen di fal dafa am ñu fi nekkoon te ñii bañ ñuy fal dafa am lu ñu tegaloon ñoom. dañu waxoon ne Sénégal bu ñëwee dañ koy changé. Mm-hmm. moom moo tax ñun ñëpp ñu adhéré ci projet bi. mais nga nekk ci kaw mbedd ñu la fay jëlee ngay wëlbatiku di xeex te parce que war ñoo fa jëlee mais dëkk da nga nekk ci kaw mbedd te mbedd pour ni pour piéton la mais pas pas pas par pas pour pour ay kii. léegi bu fekkente ne loolu dafa am. yow nga war a jël say mesures. Mm-hmm. parce que tout simplement ñii ne ay militants lañu woon nga bëgg cee delluwaat ginnaaw. gisuma sens boobu dafay xaw a dafay xaw a doy waar ci ci ci ci nag sama sama gars lañ sama partenaire lañ. effectivement am yoo xam ne nii Seydina li nga wax am na solo sax bu dee dëgg la dañ koy wax dëgg dañ koy wax njiit du dellu ginnaaw. <laughs> du dellu ginnaaw njiit da ngay da ngay foncé. effectivement di exécuter alors Salma sa point de vue peut-être ci accident yi. waaw accident yi ak marchand ambulant yi comme li ngeen wax njiit du dellu ginnaaw waaye njiit day réfléchir. Mhm. <laughs> balaa moo jël décision. Mhm. day réfléchir bu baax a baax. et on sait que tey dafa am système bu fi nekkoon am na ñoo xamante ni ba tey Aïcha ñu ngi ci système bi lenn lañ fi nekkee mooy jël ay baton wala di jéem a euh, euh, euh, fàq xam na laa ko mën a waxee sax fàdd ñi nga xamante ne tey ñoo fi nekk gis nañ décision bi nga xamante ne Alioune jël na ko gis nañ ñi ko jël xam nañ ne tey mairie dafa am ay pouvoir yoo xamante ne ñoo ko am état tibb ci ay pouvoir am jox ko ko mu war a doxal waaye bu ñuy doxal ñoom dañu war a nekk en en en parfaite symbiose di collaborer. xool naka lañ koy defee parce que Alioune Ndoye depuis Macky Sall ba tey mi ngi fi. maire Dakar Plateau pourquoi attendre aujourd'hui pour jël décision bu ni mel. maire Colobane pourquoi attendre aujourd'hui pour jël décision bu ñu mel bu ni mel est-ce que biñ koy def tey jii concerté wu nañu. abi euh, euh, ak nu mu tudd si population bi dëkkee ci Colobane yàgg nañ def revendication yu ni mel. pour ñi nga xamante ne ñoo di commerçant yi ak tablier yi ñu jug foofu. pourquoi attendre aujourd'hui pour def lu ni mel dama ne descente bi Ousmane Sonko defoon Colobane c'est réfléchi mm-hmm. c'est réfléchi mm-hmm. d'accord nañu réew boo xamante ni réewum yoon la nekkul ni da ngay fàkk rek fu la neex nga teg sa bagage jaay loolu du yoon mm-hmm. on le sait très bien waaye Sénégal tamit xam nañu réew lañ boo xamante ni dama ne nit ñi dañuy xëy di ko lijjanti ji waxuñu kenn du leen fa jëlee dinañ leen fa jëlee waaye dinañ leen utal ay sites de recasement ba pare mm-hmm. balaa ñu leen fay jëlee doo jug jug jug rek nag kii ko on ay problème politique moo nekk ci suuf règlement au delà de ça aussi mm-hmm. affaire Euh, accident yii loolu il faut juste être sévère je pense que 12 xam 11 commandement yàgg nañ ko fee wax mhm. ay commandement yoo xamante ne duñ ko mettre en place tey jii buñ ko mettre en place je pense que tey problème bi nga xamante ne depuis loolu moom la wax mais euh, bi xot nañu bu baax a baax il très rapidement parce que actualité boobu romboon nañu ko bëggoon naa ñëw <laughs> yaa ngi ci bëgg a forcer c'est intéressant parce que bëggoon naa sax ñëw si déclaration jël sa congé redevance. mais non c'est parce tout simplement da bëgg un état bu fort. Mm-hmm. mais pas un état buy calculer. on aura l'occasion d'en revenir après cest ñii dañ fal pour ñu changer suñu mm-hmm. ñu fekkee mm-hmm. ne ñoom changé wu taxawuñu pour changer nañu wax quand même. nit ki dégg ma rek gis nga nit ki. <laughs> nit ki da am fulla ci la ngay <laughs> am pàdé ci li ngay def changer mais Sénégal jusqu'à présent sentir guñu benn changement bi. d'accord on euh, on aura revenir incha allah bu fekkente ne ñu waxtaanee li nga xam ne moom moo di chômage des jeunes wala situation des jeunes à Dakar dinañ ñëwaat carrément ci actualité boobu parce que actualité boobu duñu ko bàyyi noonu mu mu seet. parce que bàyyi say doom yi di def ko ay rebondissement merci Seydina ci chronique gu tey bi am na solo euh, euh, a mettre fin à ce fléau 21 parce que lii moom vraiment lu lu garaaw la lu jéggi dayoo mu ngi lay jaajëfal lu baax a baax Seyna demain incha allah on continue en attendant maa ngi fi ak Moussa Sène comme tous les mardis pour ñëw euh, ci rubrique euh, éducation tey ñu fas yéene waxtaanee problématique de l'enseignement arabo islamique au Sénégal.